tey nag ñu ñëw présenter Sénégal yépp parti bi ak lan mooy programme mu parti bi parti bi nag li ko tax a jóg mooy développer Sénégal moom moo ko tax a jóg. parce que ku ne xam ne réew mi am na ay tolof-tolof ak ay jafe-jafe yu rëy kon suñu indee lu toll ni parti de la paix muy parti jàmm waaye ñu jiital ci sant tamit suñu xalifa bu tedd bi ak Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne moo di xalifa général di Mouride. nga xamante ne bii dafa taxaw taxawaay bu rëy ci askan wi yëpp ci Sénégal bi coow li amee ci réew mi ak jafe-jafe yi mu yëkkati kàddoom yabal ay nitam ñu dox médiation ci diggante opposition ak pouvoir ngir mbir mi mën a am ak tekk akuk dal ba Sénégal yi yëpp mën a nekkaat ci jàmm kon parti de la paix bu juddoo ci kon presque euh, juddu na ci diggante jàmm ji nga xam ne moom la suñu Muntaxa di woote ci biir Sénégal gépp muy parti boo xamante ne bii du parti bu xuloo pour xastante waaye parti la boo xam ne dafa ñëw pour indi beneen façon politique bu bees ci territoire Sénégal bi yëpp itam moo indi programme bu leer ci askan wi wan leen nit nan la war a mel mooy sàkku xam-xam mais wut lu koy développé lu koy jëme kanam te programme yooyu yëpp am nañu ko ci biir parti bi ñu ngi ciy doxal ci Sénégal gi yëpp ba responsable yi ñu jot am yëpp itam ci lañu ñu ko am euh, ñaan tamit. ci Touba gi nga xamante ne bii man fi laa nekk euh, jiite région de Diourbel bi di responsable bi ci parti bi euh, sama mbokku sëriñ si ñi nga xamante ne bii dañuy xastante ci wàllu politique maa ngi leen di ñaan sama diggante ak ñoom ñu moytandiku yu mel noonu ndax politique ñoom waruñoo nekk ci seen biir di xastante susu ci point politique moo tax ñu indi bëgg indi façon bu bees boo xam ne indi parti de la paix moo xam ne parti jàmm la pour dox médiation ci diggante sénégalais yi yëpp. président Issa Sall nag nommé nañu ko ministre président de la république moom moo ko soxla ci jafe-jafe yi askan wi nekk woo ko nommé ko ministre conseil bu président de la république te moom du xaar ba doon président de la république doog a jariñ askan wi parce que dafa créé lu toll ni université di Sahel université di Sahel ay junniy junniy doomu ñoo fa jaar jànge fa génne fa amee fa ay diplôme ba léegi nii am na trois cent et quelques yoo xam ne ay embauchement lañ ci biir université du Sahel te président Issa moom moo ko créé kon kooku du koo xam ne ci réew mi dafa am problème mu xaalis wala ku ko jox wala nangam mooy tax ngir mu dem ànd ak président de la République Macky Sall parce que xam-xamam la ñu soxla te xam-xamam moo toll foo xamante ni bii sénégalais yi am nañu yëg-yëg ni rawatina président de la République mi nga xam ne moom la yàlla teg mu am yëg-yëg moom mën na ko woo. ñoddi ko ngir mu ñëw ànd ak moom defar Sénégal moo tax mu dem wuy ji ko ci point bi nga xamante ne bii mooy jafe yi askan wi nekk ndax ku ne xam na ne Italie sax opposition ba fa nekk dañoo waxtaanee ne ak pouvoir bi nañu waxtaan négocier ngir ñi nga xam ne am nañu xam-xam ñu ñoddi leen ñu jàppale leen donte am nañu seen partie di ko doxal ñun nag suñu parti de la paix la ñu continuer di ko doxal ci biir réew mi ngir askan wi rek a ko tax a jóg mais du parti boo xam ne dañ ko créer ngir xeex diw wala xeex nangam taxul ñu péré ko mais Sénégal yi yëpp la ñuy woo ak fu Sénégal yi mën a nekk ñu ngi def appel di la woo ci parti de la paix muy parti jàmm ñu ànd defar Sénégal. élection locale yi incha allah ñun dañuy dem ak suñu parti parce que congrès bi ñu bi euh, euh, assemblée générale bi ñu njëkk def suñu chaise bi nga xam ne mi ngi nekk Mermoz plus de 2000 et quelques personnes bàyyi ko nañ fi yoo xam ne ñëpp ci régions yi ak département yi Sénégal la ñu bàyyi ko ñun ñu ngi doon liggéey suñu liggéey suuf boo xam ne foo dem. fépp foo dem sensibilisation proximité boo xam ne foo dem am nañu fa ñoo xam ne ñu ngi fa représenté ci Sénégal. ñu ñaan président de la République ci euh, programme bu bees bi nga xamante ne bi wax na ko ci euh, discours am bi nga xamante ne bi jot nañ koo diglu jàngate ci lu bari nga xam ne askan wi mën nañ cee jariñ te mel na ni yëg na jafe-jafe askan wi fi ñu toll mel na ni yëg na ko comme que yëg na ko nag du jarati ñu ciy indi ay contribution ak i débat mooy li koy ñaan mooy mu indi mu taxawal ay borom xam ñu am programme ñu génne askan wi ci jafe yi ñu nekk. loolu moo doon suñu présentation tey jii ak ànd ko ak tous les responsables avec les chefs religieux ñu ñëw présenté wu ngir wax ak sénégalais yi jottali leen lii nga xamante ne bii mooy mébétu président Issa Sall ci Sénégal.